dikkati naa loo xam-xam ma sàmba ma demba day gën la xam ma sàmba l'observateur ni ma moo tax taxit ñu yëngu ci wàllu yoon daal dinañuy àddu nag ci mbiru Khalifa Babacar Sall gi yéene kaay bi ni ma ka ca jiitu nag di président bu union des magistrats bu réewum Sénégal moo naqaru nag bu baax a baax patam patamee bi nga xam ni patam patamee nañ ko russie Khalifa Babacar Sall bi moom Souleymane Teliko ci yéene kaay bi di l'observateur daal di xam le ni benn ministre de la justice ak beneen autorité politique bu nekk ci biir réewum Sénégal warta wax nag ndax Khalifa Babacar Sall mi mën na nekk am déet ñu ko wax du seenu preuve nan nu bàyyi ñu def sunub liggéey ndaak Fall professeur de droit la ci les écoles yéeni kaay ne Khalifa Babacar Sall de ba nii may waxee ab candidat la boo xam ne nii mën nañ kaa falte moom it mën naa fale fii ak ñaar fukki fan ci weeru janvier nag dina ma jaaxal lool mbir bu amee coppite ñu ne Khalifa Babacar Sall du mën doonub candidat moom xalifa Sall ndax faa lay wax ba tey de su jëlee élection présidentielle bii daal di koy gagné suffrage universel nag mooy maamu lépp luy wàllug yoon ak lépp luy sañ-sañ ci réew mi kon bu boobaa buñ ko falee moom Khalifa Sall day génn ci kaso bee ñu daal di koy tëral nekk nag président de la république moom Cheikh Bamba Dièye ma ko doon jàppale dafa mel da ko bëgg a du Khalifa Babacar Sall lu ci mënti am daal ndaag ne Khalifa la te lii kenn mënu koo dindi ci réew mi su ko di day de candidat la na nag ay weem yu gudd fas yéene mu saf gouvernement gi naqar na bu baax a baax pagaay bi nga xam ni am na fan bu njëkk ci dépôt parrainage yi naqarlu sàcc gi nga xam ne mi ngi xeeñ ci élection présidentielle yi naqaru na moom Aïssata Tall Sall échec bi nga xam ne nërmeelu PSE la candidature unique bu opposition bi sàkku ko moom Aïssata ne la amoon conseil constitutionnel premier ministre lu njiit njaag moo cay njaag mooy irresponsable bi laas ne ma ñëwal ci Karim Meïssa Wade moom de ab candidature am daanaka jaxase na nag ñi nga xam ne ñoom ñooy juriste yi ñii ne nan Maysa Wade mën a nekk candidat ndax bindoom gi dëggu na ñi nag daal di ne doomu Abdoulaye Wade jay mënta fallu ci mim réew ci mënti am ma opposition bi day dafa ak tey jii daanaka parti démocratique sénégalais kenn xàmmeetu leen front national ba nag ku ci nekk ak sa mbébét ci benn côté Karim Maysa Wade moom ma ngay xool nu mu bindoo ci liste électorale yi Malick Gakou Idrissa Seck Abdoul Mbaye Sonko Aïda Mbodj ñoom ña ngay wëri nag ay fraude yi nga xam ni njort nañ ne man la bataay gi de dañu koo daal di defere opposition bi ne nekk sa bëgg-bëgg moom professeur Moussa Diaw ne bile opposition ma ne la dañoo mënta ànd nekk benn ndax nag dafa am projet boo xam ne nekk na ci seenu gannaaw vox populi ne ma gën maan xumaan de amul lu mu bàyyil Macky Sall ak régimam moom gën maan xumaan ne man ragaluma kenn ku dul yàlla suñu borom nekkuma it ci kaaw kenn ku dul gu askan wi ndax ñoom askan wi ñooma dul war mukk moom xumaan ne Macky Sall dafa créé ay martyrs ñoo xam ne dañoo sonn sonn ba mujj nag fas yéene fippu te nag naqaruk askan wi des ci réewum Sénégal moom xumaan ba tey ne sama xalaat mooy sénégalais du ñëpp nag bëgg Macky Sall dem looloo am ndax ba ñu ko defee Abdoulaye Wade sonn ci moom lool dañoo génn ci mbedd mi jëlee ko ci réew mi gën man xumaan ne liy dëgg mooy mënumaa fekk koo xam ne nag fukkeet ak ñaar ñaa ngi ci nguur taxaw tey daan man dëkk bi doxul 24 heures ne bu doxee wax leen ma lan moo dox Macky Sall juróom-ñaari at ci bopp réew mi lan la fi def liggéeyu ndaw yi moom waxaale ko bari ci programme nag yoo xam ne taxawal nañu ko waaye amul lenn loo xam ne jur na ci njëriñ ci ndaw yi Dakar première guerre bu golfe diggante 90 ak 91 day ba yooyu leen ndàmpaay teguñu ko gën mbir mi nekk ab crime d'état te ña defoon ba nag ñu ci réew mi di dund askan wi di leen xoole gët te kenn saafaraw ko muy président Abdou Diouf président assemblée nationale gii di Moustapha Niasse Ousmane ak yeneen ci ay yoo xam ne nii ñu ci armée bi ak yenn fonction yu kawee ci réew mi ba lan moo tax dossier boobee laaluñu ko moo jaaxal juróomi yoon a ngi di ñuy tegle ñoom sunu gaynde bit soko yi daal di jël nag coupe d' afrique bi diggante sénégal ak nigéria moo doon final bi démb juróom benn bal ci benn la gone daal di dóor nigéria xale yi dee ngi dóor waajur yi buñ ko yëgee buñ ko yëgul direct info ne ma xale jigéen yi ci réew mi dee buñ ci waxu léegi ñu tas min réew te dafa mel ni i waajur yi nag xam nañ noppi ca xale bu jigéen bii de man la may def samay waajur xam nañ ko ñoo ci tëj seenu gët kii ne man moom saa bu ma xëyee maayoru dugg seenu gémmiñ fay ndox fay courant lépp man la war kon mënuñoo xool ca la may ne yéeni xale yi day ay cheveux naturels yu deux cent cinquante mille ak lu ko ëpp la ñuy teg solo ba jekk tëjalewuñ fenn xaalis bi fudul xale yu góor yi teg ci nag tux gu metti naan goo xam ne ñu ngi ko nekkee ci mim réew père de famille yi nag nee ñu lu njiit njaag yaayee njaag ndax ñooy lëkkaloog seeni doom ci ñaaw teef yooyee laaj ba samp na kan mooy victime bi ak kan mooy coupable bi yendu leen ak jàmm